depuis lundi ba léegi ñu ngi protester contre violence bi nga xam ne nii ñu ngi koy teg taximaan yi ci tali bi. parce que bu ngeen fàttalikoo samdi bi passé jàpp dimanche ci guddi dafa am suñu benn mbokku taximaan boo xam ne nii dañ ko agressé ci pikin menacé ko ak pistolet wala batiku yàq loolu nag nekkul loo xam ne tey la jëkk ndax bu ngeen fàttalikoo 2016 suñu mbokk mi nga xam ne mooy Ibrahima Samb rey nañ ko fii ci yoof té yakarna biñ ko atté waji ñu ko ñu ko tej fukki at ak juróom donc lool nak dafa bëgg bëri mu nekk mbir bo xam daf ñu nakari waaw lool nak motax ñuy protester contre violence bi nga xam ñu ngi koy taxi man yi te it loolu dañ ci wo ministère de l'intérieur di ci wo aussi président de la république pour que lool aussi ñu wax ci ndax touriste trop te amna na loo xam ne jur du jur jam parce que man yi ay doom adam lañ ay nit lañu té it ñu fit waaye nag comme ci réew yoon lañ nekk aussi euh, bëgg nañu lépp loo xam ne dañ koy def rek ñu teg ko ci yoon. parce que bari na particulier yoo xam ne ñu ngi leen di bàyyi ñuy doxantoo ay fital ci tali bi te loolu du yoon parce que boo xoolee dëkk bi ni ñuy contrôler oto yi intersection boo dem la plupart ay taxi ngay gis ñu gaar di leen contrôler alors que les vrais criminels ñoo ngi doxantoo ay seen ay fital donc loolu nag dootuñu ko mën a nangu dootuñu ko mën a accepter loolu moo waral depuis lundi ba léegi nii. ngeen gis taxi ñu tak ay brassard rouge. autorité yi c'est pas la première fois ñu leen di saisir parce que dossier bi mi ngi ci kanamu yoon dossier bi mi ngi ci kanamu yoon mais liñ la wax lancé nañ appel mais duñ ci yem amna memorandum bo xamni xam dinañ ko jébal président de la république amna bo xamni aussi dinañ ko jébal ministre de l'intérieur ak suñu ministère de tutelle pour que ñom ñep ñu xam jafé jafé té xam nañ ko sax mais li bañ moy lu melni ni amati parce que nak di doxonto ay fital ñu leen di bay ñu doxonto ay fital loolu moy wane ne contrôle sélectif bi nga xamné ñun dañ ko yag a dénoncé mooy am ci talib ci mois de septembre bi nas nañ yenen plan d'action yo xamné ni bu fekké ne amuñu gain de cause amul benn réaction bu positif bu joggé ci tutelle bi dana am benen taxaway bo xamné dañ ko am.